ba mu àggale ko ci mbooleem fay yoonu murit di dongant rek di wax ni li ñu bëgg waxtaane bëgg cee indi rek euh, dara loo xam ni xañ na dañ cee séentu mu doon rekk topp jaar-jaari sëñ bi ak it jéem cee leeral lenn ci ay gis-gis loolu euh, ñi ngi wax ni ndongo rek moo koy def loo xam ni maanaam lu ci gëstu la waaye lu aajowoo tamit ñuy koy gàgganti ndax dongal Baay Faal rek te groupe bi day groupe boo xam ni niñ ko xamee ñi ci ëpp ay borom xam-xam rek a ci nekk waaye nag ubbi nañ bunt boo xam ni bunt buñ mën a jaar ngir gëstu gën a jëmale kanam tukki bi nga xam ni sëñ bi bi mu koy dem àndul woon kenn koo xam ni kooku moom mën di ko topp di ko génneel ay doxaliinam te moomit amoon na ngant ci di liggéeyal suñu borom ba ba noppi di wëlbatiku eh, lépp mu am na ci yoo xam ne digganteem ak boromam am na ci yoo xam ne ak nasaan yi ko doon def la te ñoom mu ne wuñ ca dara su ko defee nag kon ñun loolu bu demee ba nga xam ne te jii sooy jàngat téeméeri at yi jàll na te li nga xam ne aju na ci te doon ay archives sax nga xam ni ñaari archive dafay baaxoo bu amee téeméeri at ñu desele ko jox ko seeni borom ñu mën koo tas ba loolu sax léegi mënta am kon nag yaakaar naa ni ñi ne ci yoon wi yëpp am nañ dewaaru nag buñ fi bëggee bàyyi dara loo xam ne ñiy ñëw ëllëg dinañ ko mën a jariñoo bu fekkee ni ñoom bëgg nañ fee bàyyi dara loo xam ne ay wuute yu bari du ci am kon ñu amal jataay yu mel ni jataay yi nga xam ne suñ ci indee dara kenn ku ne lu ci mat a jubbanti ak mat a defar Eh, bu ko defee ñu mën a bokk def ko waaw bu ko defee xaj na dina ci am nu ñuy jàppe yoonu tukki géej gi noo xam dina waroo ak niñ ko doon baax defee ndax ñi ëpp dañoo baaxoo di jàpp ni rek sëñ bi dafa jógee Sénégal eh, daal di dem Gabon ci ni mu gën rek te man nag man ma jàpp ni sëñ bi dafa jógee Sénégal jàll ba Congo Brazzaville gi nga xam ne moo doonoon Afrique équatoriale français oh, ñu ñu yóbbu ko fa kilifa ga nekk foofu nag moo door a joxe sañ-sañum ñu andi ko Gabon su ko defee kon loolu xañ na foofu la yenn ci wute yi di amee waaw. li wax ni rek dina jafe ci ñun nag ñu tëb rek daal di dem daanu ci Gabon waaye dinañ def résumé bu gàtt ci benn ojo xam leen ni daal sëñ bi ginnaaw bi nga xam ne ni yàlla dogal na ah, liggéeyam bu màgg boobu nga xam ne mission la bu mu amoon digganteem ak boromam ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jóge Touba dem Mbacke Bari jóge mbake Bari di wujji Ndar mu am ci point boo xam ni euh, man moom rek moom laay jël euh, def ko dalil ngir di ko wéral nag waaw muy billahi faaraxtu nasaara jeewal mu mel ni kii tukki te nasaar yi di ko yóbbu mu dem rencontre bi mu njëkk a def ak ñoom fa mu daje ñoom rek mu ni ta mu mu waat ni tàggoon na ak ñoom kon loolu nag nit ñi dañ posé question ni waaw kon lu tax muy tukki ak ba mu tukkee nu tukki ba demee su ko defee loolu ku topp waxtaan wi di nga gis ni kat moom ndekete daf leen jëfandikoo woon rek ngir dem ci ab liggéeyam waaye moom ñoom mos jotee ñoom daal waaw bu ko defee kon loolu daal moom la ñuy wéyal ndax lan daf ni nafaali xayri laawu xablu fii ndari bi ahlil badri usud kadari mu mel ni nag ah, ahlil badri moom nga xam ni moom lu njëkk muy ñëw ndar maanaam lañ ànd moom ci jeewal mus ñu fee tàggoog moom ba saa yoo xamee ne nasaan yi mus nañoo bëgg a jëflante ak moom loo xam day nuroog forcé wala jaay doole rek foofa ñoom gàccaal nañ leen ca saase waaw ko defee mu jàll ndar loola wéy feeñ euh, am na ñoo xam ne leeral nañ ni fan yi nga xam ne sëñ bi am na ko ci ndar weer wi jant bi du feeñ ba xam ne ku foot sa yére sax boo ko weeree du wow noonu nag ki la jaale dem ndakaaru ñaari guddeem yooyu wéy ni ñu koy waxee julli ci géej gi am mu jaar Conakry jaar Grand-Bassam ci Côte d'Ivoire wéyal aw yoonam jaar fi ñu naan Dahomey nga xam ne mooy Porto-Novo tey jii eh, ci réew Bénin daal di wéyal romb Nigéria romb dëkk buñ naan Cameroun waaye ca wet ga nag am dëkk bu ne ci biir ndox bu ñuy wax sawto Tomé et Principe gaal ga taxaw fa ba mu fa génne nag wéy ci la ñëw taxaw ci fi ñuy wax Cap Lopez nga xam moom la ñuy wax Cabo Bissau Cabo Bissau boobu nag ba tey jii fi ne gaal yi dañ fa dañ fay jaar dafa def escale ndax fi mu situé boo demee tey jii société pétrole yu Gabon yëpp a nga fa gaal yi dañ fay ravitaillé wu ci carburant yu nekk mu ñu naan ko Cap nga xam ni kon te Cap googu sëñ bi ba mu fa jaaree sax taxul mu dugg ci biir Gabon ci sama jàngat mu wéer nag romb dëkk bi nga xam ne moom la ñuy wax Cité Kama nga xam ne mooy Gàmba soog ñoom it fa seen pétrole bi ne daal di wéy romb dëkk bu ñuy wax Mayumba yéeg ca kaw nag boo rombee Mayumba rek directement da ngay daal di agsi nag ci Congo seen dëkk bi njëkk nga xam ne moom la ñuy wax euh, Pointe Noire ci jamono ji waaye jooju jamono Luango lañ daan wax euh, nga xam ne foofu base labbe yi la woon ci jooju jamono foofu tamit doo xoolee fi la dëkk bi ñuy wax Banana nekk banaana boo ko rombee nag. dafay wàcc ndox mi nga xam ne moom la ñu wax océan Atlantique war jël ndox mi ñuy wax nag fleuve Congo waaw bi nga xamee ne yàlla dogal na mu jël fleuve Congo ci la romb nag ci biir fleuve bi loo foofu sax maa ngi fi xam ba xam leen ni ba tey jii may wax ak yéen Congo Brazza ak Libreville kenn amu ci port en eau profonde seeni port port yu port yoo xam ne xootul la ay dex la ci dex la ubbi ko nga xam ne ñoom ñaar ñëpp seeni seeni gaal yu mag bateau yu rëy yi suñ jógee Chine wala ci yeneen dëkk yi indi conteneur suñ accès point noir fa lañ koy wàccee jël en yeneen ay bateau yoo xam ne mën nañoo daw ci ci dex ñu jël seeni conteneur dugal ko ci biir moo xam Gabon la moo xam Congo Brazza la bu dee Gabon la sax ñoom ñi ngi jéem a gas port en eau profond ci Mayomba fi mu de nii waaye ba léegi Libreville changement boobu la ñuy def ba léegi tamit Brazzaville ñoom tamit changement boobu la ñuy def ndax euh, ndox mi ci fleuve la. waaw bu ko defee fleuve boobu nag bi ko gaal gi jëlee ci la romb nag port bu feeñ bii nga xam ne moom la ñu xam matadi nga xam ne moo waral sëñ bi naan am saa saani am tidaahu nat bunu attadi jumla tama laqeetu nax wa matadi matadi googu moom mi ngi bokk ci Zaïre waaye fleuve bi damaa wax ni genn wet gi nga xam moo féete ci sa loxo càmmoñ moom mooy Brazzaville wet gi féete ci sa loxo ndijoor moom mooy Kinshasa bu ko defee nag batadi boobu ci Congo Kinshasa bi ñu naan Zaïre ca la bokk mu wéyal gaal gi romb fi ñuy wax Londima bi mu rondee romb dëkk bu naan Boma ci noonu nag ci lay ñëwee nag ci dëkk bi ñu naan Brazzaville Brazzaville booba nag mooy mooy capitalu Afrique équatoriale français bu ko defee comme Saint-Louis nag ñoom ñoo déporté woon sëñ bi te foofu la gouverneur bi nekkoon ci Afrique de l'Ouest kon su suy joxe ndigal ngir kenn war koo jël booba natta nattangoom bi nga xam ne moom moo ne fii ci Afrique centrale booba Brazzaville la ne ñu yóbbu ko ci kooku na kooku bi mu xoolee gis na ni Congo bari na nit ah, te it wettaliku na te ñoom niñ bëgg a jëflanteeg sëñ bi genre séquestration la maanaam dañoo jàpp ni dañ koy yóbbu lakk ko ci barab boo xam ne kenn du xam ci moom dara ñu ni nag kon loolu gamoo lañ ko mën a defee kenn ku ne xam na ne soo gëstoo histoire di nga gis ni Sabar Niang de Brazza 1875 vingt ans avant Sëñ Tuubaa di fi ñëw la jóge Brazzaville ñëw Gabon installé fi administration français ndax portugais yi ñoo njëkkoon nekk fii moom Sabar Niang de Brazza moom ba muy ñëw ba muy ñëw Libreville sergent Malamine Camara ab sénégalais la àndal ak ay malien ñu naan leen jooju jamono de Soudan français malien yi ci àndoon boo ko defee loolu bu ku dem ci mémorial mémorial de la gendarmerie gabonaise di nga ko ci fekk léegi ñu si ju ñu delloo si sëñ bi nag jëlee ko Brazzaville googu nag jaaraat ak moom ci ndox mi ba agsi ci dëkk bi naan Cité Kama mi ngi dend ak Gamba ci wetu Port-Gentil la ñu jëlaat fleuve bi ñu naan légu léguye wàcc ak moom ba ñëwaat nag ci euh, Kablo Bissa bi may wax. Kablo Bissa bi nga xam ne sëñ bi agsiwaat na fa Kablo Bissa benn faar moo fa nekk mu mel ni faar bi nekk ci Gorée mooy lamp yi mag yooyu nga xam ne buñ ko taalee day gindi bato yi ci biir géej gi ngir ñu mën a xam seen cap fi nga xam ne fi la ñuy si lu jiitu sëñ bi di ñëw Gabon ku ñu wax Sidi Mabo moom moom moom affecté woon Brazzaville jëlee ku Ndar moom moo yoroon boobu di ko guider Sidi Mabo nag. ginnaaw bi moom dinañ mujj gis digganteem ak sëñ Tuubaa bu sëñ bi ñëwee Lambaréné léegi sëñ bi dugg Kabla-Bissa mooy Kabla-Pes wéyal gaalam jubal si nag libre Libreville gi nga xam ni nag moom fi la sëñ bi sax ci ñetti weeram njëkk bi nga xamee ni yàlla dogal na mu agsi Libreville ku xool xas dëgg ayasaminallaahu inde jéewali dangay daal di gis ni nag ah, trajectoire yi sëñ bi di wax nag na mu déparé ca Ndar jaar Conakry jaar Grand Bassin jaar Dahomey di ko indi noonu nag bi mu agsee fii nag mu ni yasara lii mun naa la daal Libreville wala yasara lii mun na la daal Libreville bu ko defee ndax bu dee ci waxee du jamono ji boo nee Libreville ñu xam li nga wax boo nee Libreville wala fal nga ko ci ni sëñ bi baaxoon di waxee kon yasara lii mun naa la daal Libreville yi man xaadar yi maa xaaba an kulluwali bi sëñ bi wàcc ci po ci débarcadère bi nga xam ne moo nekk ci Libreville nga xam ne moo jàkkaarloo ak palais présidentiel bi nga xam ne fii la njiitu réew mi ne président Omar Bongo tabaxoon ko fi foofu la sëñ bi wàcc ca booba jamono muy en 1895 bi yàlla dogalee sëñ bi wàcc comme ni mu ko baaxoon def rek musta suppi dara ci doxalinam ca ndar wala ci fu mën a doon ndax ndar kenn ku ne gis na ni. bi mu ñëwee ci bureau gouverneur bi bi mu wàccee dafa julli ñaari rakk fee ca libre fee it bi nga xamee ne wàcce na ci gaal gi bi mu doxee ay jéego oh, ci loo xam ne war naa toll ci juróom fukk wala juróom benn fukki mètre foofa la taxaw julli fa ñaari rakkaam yooyee fa mu julli woon ñaari rakkaam ya dara dara dara néew fa tey jii boo demee bâtiment fa nekk malaayika lañ ko wax banque bi nga xam moo gën a ràññiku ci réew mu ñu naan ko banque BGF seen direction général la ku ne Gabon rek xam na lan mooy malaayka malaayka nag moom kuñ naan da nga ànd ak ahlu badr fa nga jëkk a julli dara néew tey jii la fay ñu koy wooyee malaayka yooyu yëpp tamit yu jar a jàngat la bu ko defee sëñ bi nag wéyal dox ay jéegoom nag ci lu war a toll ci deux cent wala trois cent mètres cent wala trois cent nag mooy barab bi nga xam ne ca booba jamono foofu fi la tubaab bi amee seen base bi nga xam ne ku ñu indi war laa téye ci Libreville fa lañ lay téye fa la soldat si nekk foofu nag dinañ ko wooyee lu bari dinañ ko wooyee mémorial Léon Mba mooy bi président Léon Mba faatoo fi lañ ko suul dinañ ko wooye aussi ancien ancien place d'indépendance dinañ ko wooyee aussi monument mort des Français bari na nuñ koy wooyee waaye barab boobee daal yu baree bari histoire yu baree bari am na fa foofu la sëñ bi sax ci ñetti weeram yu njëkk ci Libreville jéggal ma nag ci ni may waxee ndax euh, dafa mel ni su fekkee dañuy jàngat loo xam ne lu weesu woon la te am tamit bu dee ne garab la gu ñu jëmbat ay meññeet yu ci génne yóbbu yóbbulee ba pare dellu si ci meññeet yi xaj na day jafe moom moo tax may indiwaale yooyu ci biir waaw waaye leeral rek mbirum sëñ Tuubaa ak li Tuubaa bi namoon ci moom ak moom la doonoon pas-pasam nga xam ni moom daf ni li waral ab tukkeem daal sababu xaybati an allaha arada an anaala min ujaa wa an akunu shafian li xaw mi wa an akunu xaadiman fi daw mi nga xam ne moom ab tukkeem euh, du tubaab bi ñoo ko indi waaye moom daa signé woon ab contrat digganteem ak boroom contrat boobee nag tubaab yi ñoo amoon man man buñ ko mën a yóbboo fa mu bëgg a dem moom mu jëfandikoo leen ngir ngir yóbbu ko fa fa bëgg a dem ndax na Gabon bindoo ci booba jamono nga xam ne amul saxaar Gabon bokkul ak Sénégal boobu saxaar amu fi amul aw yoon amul goudron daanaka Gabon infrastructure boo fi gis rek Sénégal yi fi amoon boo nga indi woon 1972 daanaka ñoo ko fi tabax dara dara dara boobu amul ci réew mi jamono ji yi sëñ bi ne bu ko defee nag kon Gabon googu ku fi mën a déplacer nit di ko yóbbu lu mat junniy kilomètre te ci gaali géej ngay jaar akum dox kon loolu du woon jàpp na ci kenn def ko ko ku dul tubaab bi te loolu moo doonoon jubluk sëñ Tuubaa ak ak bëgg-bëggam barab boobu nag ñu nekk ak moom nga xam ne mooy fi la mosquée centrale boobu ne xew-xew yu bari fi la amee ginaar googu nga xam ne dañuy wax ni dañ koo dàq ab tusiñe dàq ko ba ko reen li mu ndaw làq ci ginnaaw sëñ bi foofu la amee bi sëñ bi demee tukki dem ma maa yomba jaar làmbar na ba ñibbisi bi mu fi jaaree sëñ Moussa dane keroog la Bamba gis junniy seq ak tëng yu mës-mësi mel ni soq mu laaj lii lu mu ñu ni ko mooy ginaar ga làq woon sa ginaar ba nga fa jaaree la amoon boobu ba léegi ku ci yàpp faatu moo tax ginaar gi giir ñu ni xarbaax yi lay ayaatu te loolu am na leneen lu mu jaxasool loo xam ne su boo ko xoolee vérifié gu ma ko mais doy na waar ndax Léon Mba mi nga xam ne moo doon premier président Gabon nga xam 1902 ba sëñ bi jógee la juddu Léon Mba moom mu bàyyam cuisinier la woon te moom moo Jaraaf Faye ñoo bokkoon benn fu ñuy liggéeyee Jaraaf doon expert moom mu doon moom moom papa Léon Mba mu doon cuisinier ci même barab bi nag ndax lewoon maa fi ñu ko denc fi la juddoo moom moom fi ñu ko denc dañ koo delloo si fa mu juddoo woon denc ko fa ndax sëg yi ñoo ñoo fi tubaab soldat si quartier gi fi mu ne woon ak sëg yi ñoo takkaloo woon te Léon Mba foofu mu juddoo fi leen ko delloo si denc ko fa muy muy muy seenu këruk famille waaw ku dem ca mémorial ba sax di fa fekk loolu loolu may wax di nga fa fekk lu koy firndeel moom Léon Mba moomu nag bi sëñ bi di ñibbi 1902 maanaam moom ci la judd. bi mu juddoo ba am juróom-ñaari at wala toll ci njàng te moom leew mbaa booba jamono maanaam amul amuli mooy ndax kii te jamono jooja njàng xañ na dana am lum doon laaj jaraaf fay dafa laaj bàyyam ni ko lan moo tax sa doom ji dugaloo ko ci école yi mu jàngi mu ni ko ñàkk ay moyens daal moo mooy moo sabab ñàkk gee dugal mu jàngi moom jaraaf fay moomee moo ko jàppale mu dugal leew mbaa école française muy jàng mu doon euh, njaati géem Léon Babou wàcceet ci kër Diafay moom di expert comptable la lan dem di nekk ak moom ba ni nga xam ni ni la jànge moom ba am jàngam jeex te Jarafay moom moom laa wax ni ci mujj gi bi sëñ bi ñibbi moom la sëñ Musaa Ka wax ne keroog la góor gu mag guñ naan Jarafay dëkk Bambay jébbulu ki Seex Bamba di bis bis jooy keroog keroog la ko Seex Bamba tàggalee ki balwa miinu moo wolofal bu baax noonu la ko sëñ Musaa Ka indee jaraaf fay moomu laa wax ne nga xam ni taalibe bi sëñ Tuubaa nga xam ni keroog nee nañ jox na Bamba ñetti téeméer ak ñaari tàppi kookale moo foor nga xam sëñ Moussa nee na ko foor a foor la woon boromi Kourouwa jaraat fay moom laa wax ni moom moo yarle Léon mbaam moo jàppale bàyyam ba mu dugg école te moo nekk premier président de la république du Gabon. bu defee yii ma ci indiwaale nag ay ay yeneen xam-xam yeneen yu ci feeñ la bu ko defee kon yooyu tamit fu jaar ñëwaale ci waaw ndax ndax day tax rek ñu gën a xam historique gu Gabon ndax Gabon dëkk boo xam ne dem nañ ba tey ji njiitu réew mi. toog ci ensemble national réew mi tracé waat seen histoire xam leen ni sëñ moo indi lislaam ci miim réew loolu euh, war na war na war naa weesu bu baax a baax a baax fii ñu toll nga xam ne tey jii day mel ni rek bi sëñ bi ñëwee li fi xew kenn xamu ko kenn jéemu ci dara ñu bàyyi ko noonu bu ko defee mbir yi barab yi di suppiku euh, ba nga xam ne rek yow daanaka boo fi ñëwoon sax li ngay seen mën ngaa bañ a tee xam fu mu ne ndax saxaloo fa dara même benn petit estel rek duñ ko di ci def ci ab place wala dara su ko defee yooyu nag kon lii nii sëñ Abdou Samad def mën na cee indi lu baree baree bari ndax dina tax murid yi gën a am ak dañ kumpa gën koo sonne euh, gën a yittewoo ñëw Gabon te it jàngat buñ ciy def ak luñ ci bëgg a def mu bañatee doon initiative bu benn nit waaye mbooloo bokk def ko ay boroomi xam-xam ak ñëpp booloo def ko ba nga xam di leen def loo xam ne su ëllëgee si biiree ñii ñëw bu ñëwee lu wóor a wóor lañ fiy fekk waaw dama nett histoire waaye damaa waxaale tamit ndax ku dund ci ab dëkk fanweeri at mën naa am xaj na lañ koy defati mën naa bañ a bari te it am nañ ndimbalul tombe fi ak loo xam ne yaakaaruma ñu bari tombe waat ko ndax fii nekkoon nañ fi ak sëñ Moussa ci ay at yu xaw a bari yàgg fi ak moom sëñ Modou Mamoun Niang it bu muy ñëw fekkoon nañu bu ko defee yooyu ak ñu bari nag sëñ Moussa Moussa sëñ Sa Gaye defaat ma ne Amérique it bi muy ñëw fii di gëstu si fii lañ fekk yu bari daal bu ko defee kon loolu laay wax ni euh, su fekkee ne am na liñ ci xam lu mu tuuti tuuti loola war nañ koo considérer boole ko ak yeneen yi ñuy xam ngir mën cee tënk loo xam bu ëllëgee si biir ay wuute yu baree bari dinañ du mën a ñàkk sax ci histoire waaye dina mën a gën a dëgër daal li ñuy am ba bu ëllëgee si biir ñiy ñëw bu ñëwee ñoom fekk fi lu taxaw lu wóor waaw. loolu lañ ci jublu su ko defee nag su yàlla dogalee ñu ñëwaat euh, beneen yoon dinañ mën a wax euh, leneen di des ci Libreville ba àgg ca Montagne Sainte ak nen la sëñ bi génnee fii dem maa yomba incha allah ñi ngi jéggul nag lu ci doon njuumte wala waxin wi wala ñàkk dal bi wala ndawe gi ci lu ci mën a am rek la ñu ngi koy jéggul ndax ndongal baay Fall daal lu doon nam na bi la Cheikh Mbengue Baye Fall maa yomba Gabon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maa ngi wax ni nag di 24 au 31 juillet caravane sur le trace de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon dañoo woo woote topp jaar-jaari sëñ Tuubaa fii ci Gabon ku ca bëgg ñëw tamit euh, dinañ jaare ci seen bi ba won la yoon miñ ci nit ñi di ñëwee ñëpp ci ak jàppandal dem ak dikk waaye lu ci mën a am daal amul dem ci ambassade di wut visa amul benn jafe-jafe lu ci mën a am murid yi ñoom ñoo koy toppatoo ci jàppandal gu baax a baax a baax ñëw Libreville topp jaar-jaari sëñ Touba maa yomba lambar na uh, am yu bari tamit yu mel ni sargal maire boobu nga xam tudde na sëñ Touba mbedd ak ubbi mbedd mi officiellement am na yu bari daal yuñ ca programme ñi ngi jégg lu baax ñi ngi doon ngant ci wax ji yëpp ndax Baye Fall moom heure bii muy wëlbatiku di waxtaan nii te ma xam groupe bi ñu ci ne ba xaw a ragal sax uh, waaye daal uh, yéene feeñal nañ suñu yéene wasalaamaaleykum wa rahmatullahi sëñ Samba jërëjëf ñu ngi delloo kàddu gi.